fettaliwaat sunu yaakaar naa Ahmadul Xadim ñoo <clears throat> ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye di ñaanal sëriñ Sidi Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke na ko sunu borom may fan wu gudd ànd ko wér te defal ko mbooleem njabootu sëriñ Touba Xaadimu Rasul gépp di nuyu ak a siyaar sëriñ Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun ak mbooleem njabootu Cheikh Mahamadul Mamoun gépp di ko jaarale ci sunu bunt. alxaaji maam Cheikh mu sëriñ Modou Rokhaya Mbacké yal na yàlla may ko fan gudd wa ànd ak wér yaram mbokk yi ñu waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eh, ngir fàttalikuwaat ku nekkoon ci àdduna di fi dund ci jóge fi doonoon jaamu yàlla bu nangu woon a jaamu yàlla doonoon taalibeeb sëriñ Tuubaa xaadimu rasul bu ko doon liggéeyal waaye doonoon citoyen sénégalais bu matale ak situwaayam kooku di alxaaji Babacar Kebe di njuga ginnaaw bu ñu siyaaree sëriñ Basiiru Kebe mi nga xam ne mooy jëw ñu kër googu euh, siyaare mbooleem rakkam yi topp ci ginnaawam yépp ba agsi ci sëriñ xa mustafa Kebe sëriñ Xaadim sëriñ sëriñ Mbaalo ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar waaye siyaar boobu ñu jaarale ko ci loxol sunu bunt ci kër googu di soxna moomi Kebe moom alxaaji Njuga Kebe ak soxna Mariam jëng Saala bokk yi 13 euh, mars 1983 Sénégal yendoo woon na bëccëg bu tiis yoonu murit yendoo woon nañ bëccëg bu daw yaram mu di jàmbar joo xam ne doomi soxna la ju bokk ak doomi soxna yépp waaye di taalibab seexul xadim bu ko nangu woon a liggéeyal di citoyen boo xam ne mbooleem lu doon ay droitam rempli na ko ci réew mi yàlla dogal ak dundam toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñaar mu wàcc ab liggéey ci àllarba ju tiis joojee ci atum 1983 bokki 13 mars 2024 ak siwaat nañ ci te alquran moo wax ne fa fa zakkir fa in nafaati zikra tanfahul muminin te it waxaat ne képp koo xam ne waxtaane gaa yu baax yi yaa ngi koy def inda zikri saalihin tansilu rahma yërmande yi yàlla day wàcc ci suuf mbokk yi alaaji njuga kebe am na ñeent fukki at ak benn ci suuf amul fooy dugg ci réew mi benn région booy dox te gisoo jëfi alaaji njuga kebe bu dee Touba nga dëkk saa yoo xëyee da nga yeewu teg sa bët ci lu alaaj Njóoga Kebe def ñu war koo fàttaliku nag fàttaliku bi ci jëkk mooy alquran wala salaatu ala nabi wala istixfaar may sàkku ci képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarlook sama vidéo bi di ko seetaan nga defal yàlla ci jàngal ko faatiha bu sell teg ci fukki lixlaas ak benn ñaan sun boroom mu dolli ko ngërëmul yàlla sëriñ Abdul Ahad waxoon na àdduna ab jaarukaay la ku fi jaar nag war nga fee rëdd aw rëdd ba ñuy ñëw ëllëg bu ñëwee xam ne jaaroon nga fi alxaaji Njóoga Kebe nag jaaroon na ci réew mi jaaroon na àdduna defal réew mi loo xam ne réew mi fayeguñ ko ko te duma jóg ci di ko wax at mu ne lan la alxaaji Babacar Kebe njugal rek lebal réew mi bañ faye ko jëf ju mel nii mbokk yi am na ñoo xam ne ki démb rek defuñ ci réew mi lu toll noonu de xëy nañu ñu leen ay mbedd wala ay marché wala ay hôpital ba ay ci ay stade sax waaye man de la ko tàmbalee ci góor gouvernement bu Abdou juuf jaar ci gouvernement bu Abdoulaye Wade ba ñëw ci gouvernement bii nga xam ne mooy jeex di bopp Macky Sall ana lan lañ tuddee gun Alaaji Ndiouga Kébé ak li ñuy tuddee niti réew mi ndax ñoom am na ci kenn ko dab Alaaji Ndiouga Kébé li mu def ci réew mi ba tax na tuddeeguñ ko fi dara loolu ab laaj la te at mu jot ma laaj ko donte tuddee gi du ko jariñ dara donte ñàkk gee tuddee du tax ñu fàtte ko koo xam ne ba nga génnee àdduna ak léegi ñeent fukki at ak benn te fàtteeguñ la at mu jot ñu lay fàttali ko bis bu set ñu lay tudd kooku àdduna duut la fàtte waaye war na réew mi kat war na koo delloo njukkal ndax ku liggéeyal sam réew waa réew ma ñoo la war a fay bu fekkee da ngaa liggéeyal sam réew waa réew ma ñoo la war a fay tey la àllarba yemook 13 mars 2024 di bis bi Alaaji Njóoga Kebe demoon ajjana ci teewaayu Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Serigne Salihu Serigne Soxaybu Cheikh Mouhamadou Mourtada ak nit yàlla ya fa nekkoon ñu ñaan sun borom mu dooli ko ngërëmul yàlla dooli ko tawféex di tàllal loxo ci képp koo xam ne bëgg nga lu baax nga fàttaliku alxaaji Babacar Kebe Njuga ci weer wii jàng fatiha bu sell teg ci fukki li lixlaas ak benn wax ne alxaaji Babacar Kebe Njugo yàlla na yàlla dolli ngërëmul yàlla ci moom seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon nag yéen fii ci Assalaamy FM 99 point ci Touba lëkkaloo ak site bu mag bi di Assalaamy TV ci rond gaar bu ndaw ñoo ngi leen di joxaat beneen daje incha allahu rabbi tey jii ci àllarba ji bu ñu demee ba ñetti waxtu jot man ak alxaaji Moussa Diop danañ ànd ak yéen ci waxtaane alxaaji Ndiago kebe danañ ci am ay intervenants yuy dugg ci biir téléphone bi incha allahu rabbi ci 33 943 43 943 48 28 incha allahu rabbi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal sun bopp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.